di leen jaajëfal bu baax yéen suñu internet di leen naan déwénati di leen baal àq te leen baalu di te maa ngi lay ziar di nuyu bu baax a baax suñu xarit yépp yi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen baalu àq comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di baal àq bu baax a baax a baax xam ngeen ne ci weer wu sell lan génn muy weeru koor di ñaan lépp luñ ci woor yàlla na ko borom bi nangu fulandi fulandi ko di leen ziarewaat bu baax a baax a baax a baax ndey mbàkk di la wax ne rek daa mel ni dañ la nga buum ca boy boy ga de fi mu toll nii jël nga muuraay la sànni fële waxoon naa la ko ne woon naa la bu koor gi jeexee nga bàyyi muuraay li mais nag muuraay daf la jàpp de waroo koon a bàyyi macha allah jóoba jóoba ah Assane nuyu naa la ñu ñëw ci suñu sponsor yi Mbaye Mbaye bàyyi ngir yàlla. Ndeye Mbacke Ndeye fay naa la amaat mbégte jàkkaar la ñoom di baalu àq également nit ñi doon seetaan ñëpp ci weeru koor yi ñu jógee di leen baal àq amaat mbégte jàkkaar la ñoom pour indil leen li gën a fës ci yenn kaay yi. mu ngi noonu nag xam naa ne Mbaye Babacar amul doomu bàjjen maye ko doomu bàjjen dama koy nangul balaa ñëw ci revue bi rek dañ ciy ànd ak suñu sponsor di Jador moom mi langoo huile am pat am na vermicelle am na macaroni Ah, am na macroni xam nga ñun séeréer dañoo bëgg macarona <laughs> eh. coow laa ngay waaj a commencé nag consommé local la mhm. ci mhm. tege ki ci tege mooy au Kayar mi ngi nii yaakaar naa nekkatul au ba nga xamante ne bii moom la ñuy présenté ci réew mi yéen ñëpp xam ngeen ko muy ndox mu set sell neex mu tàngee neex bu seddee neex bii nag mooy ndoxu sportif yi sportif bu ci bëgg am forme bëgg a ceene bëgg a sa état ndox mi ngay jàppanteel wante tamit sama mbokk woykat yi kenn jaratul kenn di naan nen nen bu ñorul da leen jàppanteeg au kayaar bii ku koy naan sa baat mooy dàq lem ak suukar maa la ko wax. macha allah. Jador au kenn du ñoom ci même réew. ma nga noona. mercredi 19 mai 2021 journal suñu la moo xëyee ci xëtam bu njëkk Mbaye Boye kii di coach B52 de Mbour la muy xam ne ci journal nag mooy jinne yooyu nekk jinne Balla Gaye numéro 2 le BG de Guédiawaye dafa ragal Bombardier Mbaye Babacar. ma nga noona Mbaye Boye mooy yëkkati yooyu la kàddu wante toftal na ci leneen ndey Mbàkke nee nag kii di Aziz Aly Ndiaye. ma ngay défendre Balla Gaye 2 naan Balla Gaye 2 amul benn mbër bu muy ragal ci wàllu mystique ndax tàkkusaan bu nekk am na ko ci làmb ji wante mbër bu nekk jàkkaarloo na ak moom kon ragalul benn mbër ci wàllu mystique kon mel na ni Aziz euh, ma ngay tontu ki nga xam ne mooy mbay booy di coach cinquante 52 bu mbuur géej dëgg la Mbaye Babacar euh, mbay booy wax na Aziz tontu ko waaye mbay booy bi nga xam ne moom mooy coach Bombardier yemul foofu nee na euh, Bombardier bi nga xam ne war na dajeek waat bala Gaye deux zéro la koy def ndax mos ñu daje bo ba Bombardier daane ko donc seen prochain combat tamit deux zéro lay def waaye nee na euh, Bombardier euh, wax na ci wàllu retraite am Bombardier sant yi am na quarante cinq ans wala plus nee na avant muy euh, atteindre quarante huit ans ñaan na yàlla mu arrêté carrière te boobaa dina fekk mu am troisième couronne roi des arènes wax na également ci INSEPS bi nga xam ne nii foofu la Balla Gaye nekk instant bi nii nee avant Balla di dem foofu Bombardier moo ko fa jiitu woon. fañ jëm mooy revanche ba nga xamante ne nii suñu papa Gaston Mbengue le Don King de sénégalaise moo ko nar a àddu bëgg ko buy dox ci diggante Tapha Tine ak Bombardier journal ba nag la may wax mooy kii Tapha Tine nangu da nee na ok waaye nag mooy ndax Bombardier ñeme na la géant du Baol Mbaye Babacar Ndeye Mbacké li tax mu wax loolu mooy combat bu njëkk ba ndax ku nekk xam ne ne Tapha Tine ba muy bëreeg Bombardier sa combat bu njëkk ba combat ba dafa metti woon trop ci Bombardier yàgg ba pare metti Tapha Tine téye ko dóor ko dóor ko dóor ya nga xamante ni bii keroog ku nekkoon ci stade bi wala nga doon seetaan combat bi rek sa yaram daw na ndax deret da bëri woon na loolu Assane looloo tax euh, journal bi xëy samp laaj ne est-ce que Bombardier ñeme ne kii di Tapha Tine mais Babacar combat bu métti boobu mu ngi xew woon le 24 juin mille 2012 au stade Iba Mar euh, comme ni nga ko waxee combat bi métti woon trop ci Bombardier léegi nag Gaston dafa bëgg indiwaat combat boobu nee na waxtaan na ci Tapha Gueye Tapha euh, Tapha Tine te Tapha Tine d'accord na pour euh, affronter Bombardier seulement depuis de semaine wax na ko Bombardier waaye Bombardier indiwu ko réponse am loolu tax Gaston ne est-ce que Bombardier régulul Tapha Tine loolu nag première jàkkaarloo ba daa saxoon sàpp tàng jër kay bëgg nag moom dina ne ok moo mënewul waaye bii li ci kanam rawuli kanam rawuli bët. ba léegi CRG lañ jëm fa nga xam te ni mooy Kaolack drapeau ba ñuy amale le 28 ba la 30 incha allah waa Kaolack nag xam nañ mbër yéen sélectionné ki di Sele Mele ca la bokk mbay. Sele Mele ca di mbër a nga xamante ne bii moom tamit ràññee nañ ko bu baax a baax ci drapeau chef de l'État am ca expérience trop ndax dem na fa. demaat fa xam na la muy saf moo tax waa Kaolack na ko ñëwal nga bëral ñu wante Assane dafa mel ni équipe bu Kaolack bi yemul ci Sélémélé kese. dëgg la Mbaye Babacar seen sélection ñu ngi ko def lundi 17 mai bi bi passé ci stade euh, Lamine Gueye foofu lañ ko defee après nag retenir nañ 5 lutteurs pour défendre les couleurs de Kaolack du 28 au 30 euh, mars wala mai bi nga xam ne nii moom mooy 21e édition drapeau du chef de l' état ñun 5 mbër yi gën ko xam ci Johnson moom mooy représenté. cent vingt kilos yi après mu am Moustapha Sène ñi nga xam ne ñu gën ko xam ci Sélémélé moom mooy cent kilos yi 86 kilos yi moom mooy Pape Ndiaye ñu gën ko xam ci sox-sox 76 kilos mi ngi nekk René Seck 76 kilos mi ngi nekk El Hadji Biram Ndiaye Ndeye Mbacke. te loolu nag kii di Cheikh Super Diamono yëkkati na ay kàddoom ci journal suñu lamb ginnaaw ba yàqu-yàqu teg amee ci stade ba la ko waral lan mooy supporter dañoo meroon bu futt ginnaaw ba mu nee na mbër yi doonuñu ay dof ndax mbër yi ay nit njaay lañu. ndax ba supporteram yi yàqee fële ca euh, arène nationale moom moo futteeku di defaraat li nga xamante ne bii muy mooy mooy saisi mu nekk la nga xamante ne bii day mbàkke war nañ cee jëlee jàngat bu baax a baax a baax ndax. ànd ak mbër yaakaar ne da nga koy defaral fekk da nga koy yàqal kon ñi ànd ak mbër yi asan war nañoo xoolaat seen bopp dëgg la euh, mbay Babacar Cheikh Super Jamono mi nga xam ne moo nekk ci écurie moor Fadam moom nag dañ ko tuumaaloon ci combat euh, supporters yooyu nga xam ne ni ñoom ñoo yàqoon arène nationale bi le onze avril bu le passé neen nag euh, mbër yi dofuñu ndax. arène bu ñu xam ne nii 32 milliards la jar ñoom mbër yi duñ dem di ko yàq looloo tax ba ko seen supporters yàqee mu nekk lu leen métti loolu tax également bale seen staff bi waxee dangeen ngeen koy réflexionné moom mu futeeku dem ci arène bi di visé ak defaraat siège yi fa nekk wax na également ci défaite bi nga xam ne nii jëlee na ko ci capitaine Dina la 11 avril nee na défaite boobu moo gën a nekk lu ko gën a métti ci carrière wax na également que ne ay promoteurs ñi koy seeti pour que mu revenir le plus rapidement possible te noonu nag ba léegi drapeau chef de l'État amee ca fee ca Kaolack la ñuy desandi kii di Dakar Ndiaye Jal Diop ñu ngi dévoilé seen neuf lutteurs Mbaye Babacar. Euh, gannaaw ba ñu defee euh, regroupement jur amoon nañu juróom-ñeenti mbër gannaaw ba ñu defee regroupement ba pare euh, daal di segg seggaat tànn nañ li nga xamante ne bii mooy juróomi mbër yi nga xamante ne bii moom la ñu war a yóbbu fële ci kawlak Assane incha allah le 28 jàpp le 30. Babacar la sélection la noonu def démb ci arène nationale. après sélection boobu nag ñu jël ci neuf liteurs yoo xam ne nii ñoom ñoo leen di représenté ci Kaolack neuf lutteurs yooyu nag euh, Zambala moom moo nekk cent kilos yi moom rek moom moo amul euh, benn ku koy accompagner pour que bu ñu génnee ci seen regroupement bi finalement ñu mën a retenir cinq mais neuf yi retenir moom mooy donc euh, Zambala mi nga xam ne nii moom mooy cent vingt kilos bi cent kilos bi mi ngi nekk Ada Dieng ak euh, Baboucar Tine ñoom ñaar lan euh, choisir pour que à la fin ñu retenir ci kenn 86 kilos yi ñu ngi tànn Gora Niang ñu gën ko xam ci Tony Junior ak Ousseynou Diouf 76 kilos yi mi ngi nekk Bas Ndong ak euh, Ousmane Ndong 66 yi mi ngi nekk Serigne Ibra Dione ak Moustapha Dramé léegi ñii nag dinañ def benn regroupement. à la fin bu ñu génnee ci regroupement boobu ñu retenir ci cinq pour que ñu défendre Dakar. kon kon kon mën nañoo jàpp ne catégorie bu nekk dañ koo dañ koo dañ koo doublir. voilà sauf euh, cent vingt kilos yi cent vingt kilos yi euh, Zambala rek moo fa nekk. catégorie bu nekk am na am na ku la secondé. am na ku nekk sa gannaaw. Mhm. Bourou Jean rek Paule Mbaye Babacar mu ngi noonu. mu ngi noonu Omès Diagne directeur technique régional de Dakar la may xam ne ci journal rek mooy dinañ daal di dugg ci ñax bi mooy seen regroupement toog fa ba léegi ci drapeau chef de l'état la ñuy la ñuy desandi Omès Diagne wax nga ko mooy directeur technique régional bu ser bu bu bu Dakar la mu xamle mooy incha allah li ko dale alxemes assan daañu lëlu ak xele yi. dëgg waxtaan ak ñoom. ci drapeau chef de l'état naka lay amee condition ya fay am technique de combat ya fay am incha allah loolu alxemes lay am. dëgg la Mbaye Babacar muy suba incha allah ci jeudi bi euh, waa Dakar nag dinañ euh, dugg ci benn regroupement bu fermé boo xam ne nii euh, mi ngi xewee ci arène nationale foofu la ñu dem regroupé wu def seen mise en train techniquement psychologiquement ñu préparer leen pour que ñu mën a défendre bu baax a baax couleuru Dakar ci foofa ci Thiès ci vingt et unième édition bu drapeau du chef de l'État Dakar nag ça fait deux ans affaire am doxul yëpp ndax 2018 la gëjoon na jël trophée bi ci Kolda demoon final gagné ko mais 2019 Thiès moo ko gagné final 5-0 donc cette fois-ci war seen objectif moom mooy que ñu jëlaat trophée bi. seen objectif mooy ñu jëlaat trophée di bi di fàttali eh, équipe bu Dakar bi Ibrahima Mbaye mooy seen coach. waaw Ibrahima Mbaye dañ ko changé cette fois-ci léegi Ndiouga Dieng la Ndiouga Dieng moom mooy coach bi ñu toftal ci côté euh, Mamles Diop ñoom ñaar lañ def ñoom ñooy coach Dakar cette fois-ci. dëgg la Assane. ca noonu nag ba ku ci CNG nag mu leen tegal ay jërëjëf Ndeye Mbacke eh, Bira Sène moom bi nga xamante ne bii moo jiite CNG bi ñëw na ci anam bi nga xamante ne bii moom la ñu war a amale sélection régionale yi maanaam région yi. raison bu ci nekk naka nga war a amale sa sélection régionale Bira Sène ñëw na ci bu baax a baax Assane indi ci ay leeral. dëgg la Mbaye Babacar condition yi nga xam ne nii moom lay région yi di def pour que ñu mën a valider seen sélection lay wax fii nee na pour que sa sélection mën a valide il faut que nga organiser benn journée de sélection boo xam ne nii benn ndawu CNG moom mu koy superviser nee na également lutteurs yi fay compétir ci sélection yooyu il que ñu am ay yoo xam ne nii ñu ngi nekk en yooyu boo ko ñaari condition yooyu boo ko remplirul euh, mbër yi nga choisir boo demee tamit duñ valide dañ leen di écarter donc il faut que nga respecter ñaari conditions yi pour que CNG bi mën a valider say choix. Mhm. ca loolu nag Sibel damay xam ne ci fusion bay am diggante Fass ak Ndakaaru lam nangu nag mooy jiital bañ jiital suñu papa Kati ñëw na wax na li tax mu ànd ci li tax ñu jiital ki nga xamante ne bii mooy Amadou Kati Diop ci ñaari écrit yooyu ñu lëkkale muy écrit Fass Ndakaaru Assane. dëgg la Mbaye Babacar xam nga fas ak Ndakaaru dañ doon fusionné mais ñëpp d'accord ci fusion boobu surtout ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon ci Ndakaaru Sibel nag ñu nekkoon ci Ndakaaru la bokk moom dafa à fin dafa topp Kati Diop ci fusion Fees Ndakaaru boobu mi ngi expliqué pour pourquoi mu topp Kati Diop nee na moom xale la di jàng ci làmb te amul euh, feneen foo xam ne nii bu fa demee dina am benn coach boo xam ne nii moo gën a gaa aay Kati Diop donc looloo tax mu topp ko foofu ci Ndakaaru nee na également moom xale la ba mu dem ci Ndakaaru boobu xale bu ndaw la donc ba mu nekk xale ba léegi la ko Kati Diop di ko jàngal bëre ba fii mu toll donc yaakaar naa li gënoon moom mooy mu topp ko te looloo tax mu dem Fass Ndakaaru moom xamul kenn ku dul Amadou Kati Diop exactement. Colère moo ko téye ca moom. Colère moom it également am na benn combat mi ngi war a jàkkaarloo ko Bébé Saloum 2 le 27 juin la ko war a bëri incha allah. incha allah. mu ngi noonu macha allah ba mu daanoo ñetti yoon après trois défaites ki nga xamante ni mooy Nandi Fall. nañ koy xamal nag te mu war koo def mu gën ci carrière mooy mu daan kenn mooy daan seen daam seen le 5 juin incha allah. la war a am digganteem ak daam seen. Mm-hmm. ndaan euh, ndaan di fal nag dafa jógee ci ay tolof tolof asan mën nañoo wax ne dafa dugg ci biir saako yi mu mel ni li koy xaar yombul. Euh, waxuma dugg ci saako yi waaye mu ngi ci suuf saako yi sax ndax dafa dajale ci ron saako yi ron saako yi voilà <laughs> ndax dafa tegalee ñetti defet mhm. Nekorellu moo ko daan le premier avril 2018 euh, Sokh daane ko le 21 avril 2019 Coly Faye 2 euh, daanewaat ko le 6 juillet 2019 donc mu teggale trois défaites yoo xam ne nii da koy amee ci làmb ji mu am nag beneen combat contre Dame Sène bi nga xam ne nii mi ngi ko war a am le 5 juin loolu tax journal suñu làmb ne euh, kii di Nandi Fall amatul droit à l'erreur parce que boo amee trois défaites consécutives euh, boo ci tegee beneen rek il se pourrait yow sa carrière yàqu ba faw boo tegalee ñeenti défaite moom kenn kenn kenn waxaaleetu la mhm. Mhm. mu ngi noonu nag journal record lañ jëm Paté Silla coordonnateur moo gën event la muy xam ne ci journal nag mooy 200 millions pour un moo gën nag ginnaaw ba mu taxawalee ay combat yu bari ginnaaw bii nag moo cëppaandoo ko mbay Babacar bii baa nag moom lamp yëpp tàq moom yàgg naa taal lamp yi sax moom la mu bëgg moom moo géet nee na dafa bëgg a tëgg benn tournoi ba nga xam ne lutte simple lay doon bu doonee lutte simple ba pare mais nee na ponkale la ciy boole ñu ñu jëflante ñu jàkkaarloo mbëkkante ci seen biir mais lam ca teg Assane moo neex ñaar téeméeri million la leen fas yéenee tegal est-ce que nga yaakaar ne maa ngi yow mu ca bëree ndax ci ponk lii lan bokk. <laughs> dëgg la Mbaye euh, dafa créer benn structure bu tudd gét Events. mu jox ko nag euh, Pathé Sylla mu koy coordonné pate silla mi nag moom moo siq waxtaan ak journal record euh, mu xam file après ñoom bi nu tegee combat bi nga nga xam ne war na dox ci diggante Baye Mandione ak Zarko Lac Rose ak Amanex Jordan ak doomu Dangu Cobra Alaaji Ndiaye liiru jaan ak wuli fas yéene ko def le 22 août 2021 Pathé Sylla nee liñ ci teg mooy def benn tournoi des VIP benn tournoi boo xam ne nii 200 lañ ciy teg dajale ci VIP yi nga xam ne ay Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Lac ñoom Sa Thiès Gouye Gui ñoom ñëpp lañ ci woo tegal leen benn 200 millions ci arène nationale benn tàkkusaan ñoom ñoom ñu daje fa mun war a nekk idée boo xam ne nii nee na waxtaan na ci ak waa CNG léegi teg ko rek euh, mettre en en en place idée boobu moo ci des loo xam dina nekk soirée bu rëy Ndeye Mbacké en tout cas su amee lu mësul am lay doon c'est une première la ñuy wax mhm. innovation la ba nga xamante ne bii mësul am mise bu toll noonu mësul am ci li nga xamante ne bii mooy bëre simple. kenn du moo gis waaye mbay imaginer nga Balla Gaye Modou Lo Bombardier Tapha Tine fi ñu war a tasee. Mhm. boobu lamb ju riche. non lii question bi mooy est-ce que daañu ñëw est-ce que danañ ñëw. est que daañu Ah, ci benn taako sax ko yóbbu Bamba. Ah, waaw ci benn ta a ah, da nga yóbbu Bamba. yéen doo leen dem dama leen bëgg bu may gamu day dem ba pare def naa sama sélection yàgg na. ah Bamba day dem moo tax temps yi ma gis ko muy entraîné. Bamba la wax. moomu maane Bamba mbëru Leewtoo mu ngi noonu nag xanaa jaajëfal leen bu baax di leen fàttali ñi ngi àndoon nag Iwil Zador ak ñi nga xamante ne bii ñooy waa O kayaar ñoo ñu ñooy suñu ay partenaires yi nga xamante ne bi ñoo ñuy gunge chaque jour ci revue la l'arène jaajëfal naa leen dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon mais suba bul fi ñëw te muuroo woo koor gi jeex na nag ah, koor gee tax nga doon muuru <laughs> Ndeye Mbacke Ousmane na wane Bamba ñu xam ne mbër mu <laughs> mbër mu am <laughs> mu am sens ci combat boobu amee donc di remercier Ndeye Mbacke di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen jox dig daje ba suba ak jàmm incha allah. mu ngi noonu nag comme ni ko Mbaye waxee rek suñu partenaire numéro un ah mu ngi nii j'adore am na pat nee naa leen am na vermicelle am na macaroni duñ ci bëgg rek dinañ am sama zaar nga xam Mbaye Babacar noonu laa tàggatoo ak yéen okayaa muy noonu nee naa ndox bu sell la neex na oyof na loolu boo koy naan jàmm ak salaat ngay am damay tàggatoo ak yéen ah, balaa may dem rek damay sant bi sama papa dama koy sant bu baax di ko nuyu Bilal di kontaan sama lonkoor damay bëgg ci yow lool lool moom maa sama chauffeur nee naa ne lu mu dawaloo rek bëgguma 100% assurance sama yaay Adja dama koy nuyu bu baax ah, naan ko déwénati di ko mbaalu ak bu baax a baax plaignant bi xeese booy. non plaignant bi mooy matu. ah matu. matu matu bàjjen la mauvaise. Ah. borom borom loxo bu yéex bi. borom loxo loxo bi fii la dagg. waaw loxo bi daa yéex. damay nuyu jigéen ji góor gi nag ah, sama ay dash xeese booy. maa ngi lay la battante la battante de fer. kontaan naa ci kandu moom tey moom spécial Leewtoo yàlla na jàmmam yàgg. yàlla na jàmmam yàgg. Mistara ah kontaan ci yow bu baax a baax a baax a baax am ci yow joxe ah kontaan ci yow sama xarit bi Adja borom ndékki yu neex yi mer ndee la mer ndee la Fall damay kontaan. dinañ la summi. du ma summi damay kontaan ci moom ndekki bu neex lay jox ah damay tëj rek daal di nuyu borom kër gi di kontaan ci moom trop jaajëf wala incha allah.